Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke mu jëm ci kër Serigne bu Mbacke ci njiitul Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa xalifab Serigne bu yàlla na fi yàgg lool te wér rakkam ju baax ji di Serigne Abdoulahat Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Cheikh toog nii toogaaleel mboolem njabootuk Serigne bu ngir ñuy woote bis boobu nga xam ne mooy bisub Serigne Touba Cheikh bu di juróomi fan ci weeru koor di bis bi nga xam ne ci la gane woon àdduna ñu koy fàttaliku di ko ci ñaanal waaye ñu fàttali leen ne ci weeru tubaab le 16 lay tombeel wala le 17 mars bis boobu kon na ko ñëpp bàyyi xel. ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci ndéglu sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom Cheikh Souhaïbou moom mi nga xam ne mooy jawriñu sëriñ bi tañ teew ci kanamam kàddu yi nag di kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci sëriñ Cheikh Abdou Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa. njabootu sëriñ Sam bi gépp di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy kilifa yoon wi di Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal Seexul Xaadim mu àggale ko te te nu ànd ko moom. ñëw nag di woote bis bi nga xam ne mooy bisub sunu jàmbaar ja sunu sëriñ ba Cheikh Abou Cheikh Abou Madiane Souhaïbou mooy bis bi nga xam ne ci la feeñoon jamono di juróomi fan ci weeru ci weeru koor ca njaareem. gannaaw boo xam ne Serigne Cheikh amoon na ndigal Serigne ko mu joxoon ko ndigal ci woote bis bi saa yu bis ba masaan dellusiwaat da daan dellu ci moom laajat laajat ko ci ndigal ba sëriñ bi yeesal ndigal la mu soog a wootewaat bis bi. noonu la ko wéyalee ginnaaw Cheikh Saliou mboolem ñu ko fuut ba ci Cheikh Maodo Mountakha mii nga xam ne moo moo fi teg moo fi teg jaraab Cheikh Khadim Serigne bi saa yu màggal gi accès bala cee def dara bala cee woote wala mu wax ci dara day yónnee ci moom. laajaat ko ndigal yeesluwaat ko kon nag gannaaw boo xamee ne jaar na fa mu daan jaar mooy sàkkoo ndigal ci moom ba sëriñ bi joxe ci ndigal fetliwaat ko yeesluwaat ko mu joxe ndigal nag sëriñ bi war koo woote moo tax ñu daje fii ànd kook mbooleem njaboot gi mbokki taal bi yëpp di woote bis boobu nga xam ne bis la boo xam ne bis buñ fonk la kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ko yëgal mbokki julli yëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la bokk Seexul Xadim di ko nag mboolem seex yoon wi yëpp kon bay bàyyiwuñ ci kenn kër yi diini yëpp bàyyiwuñ ci kenn suñ baa ngi leen ko yëgal ah, di ci beral ab yëgal nag ñi nga xam ne ñooy waa kër gi muy taal muy taalibey kër gi nga xam ne bis bi moom buñ ko wax ñoom ñoo tax eh, di ci di ci soñ it mboolem daayiri daayiri yi nga xam ne ñoo aj ci kër gi yëpp moo xam daayiri yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew moo mi ngi leen ci soñ bu baax a baax di soñ it nag mboolem mm, daayiri yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew Euh, te te baaxoo woon ko màggal fu fuñ fu ñu mën a nekk suñ bi nee na mi ngi daayira boo xam ne joxoon na la ndigal ci màggal gi euh, muy daayira yi nekk mi réew nee loolu mi ngi koy fàttaliwaat bu baax a baax euh, foo xam ne ab daayira nekk na fa la ay taalibe it te dawuñu ko def nee na mi ngi ci soññee di ci joxe ndigal ñu fonk ko te yaatal ko ah di ci beral ab yëgal nag daara alxuraan yi nga xam ne ñoom bu ñuy wax bis ñoo tax ndax ku ne nga xam ne suñu soñ bu moom alxuraan moo doon ab liggéeyam mm, dundam gépp ci alxuraan la ko jeexal ci yar ci yar ci yar ak jàngale euh, ak dundal alxuraan kon bisam bu bu agsee ko ne xam ne mooy mooy bisu alxuraan kon suñ bàgg leen ko yëgal di jaarali yëgali boobu nag ci sëñ Xabban Mbakke moom Cheikh Amadou Fall mi nga xam ne moom la sëriñ teg wàllu alxuraan ci loxom waaye ci jaar ko ci sëriñ Basiiru Mbakke moom sëriñ Abib mi nga xam ne mu jiite rabatul rabata rabatul madaarisi alxuraan di yëgal mboolem daar yi daar yëpp rawatina daar yi nga xam ne ñoom baaxoo nañoo sonn ci màggal gi lool di jàng lim yu bëree bari nga xam ne am na ci daar yoo xam ne bu màggal jàllee rek ci suba si dañu commencé waat euh, di jàng lim yu bëri daaw daaw daaw lim yi fa daje bi ñu ko xoolee euh, fukki junni yi tegal la waaw loolu nag liggéey liggéey bu rëy la euh, te loolu nag ñoom xam guñ xam suñu soñ bi cëram ci alxuraan ak wàccuwaayam tañ jox ko moo tax kon suñ bi mi ngi leen ci sant bu baax a baax ku ci jàngoon rek nañ xam ne lim yëpp agsi na ci moom waaw mi ñaan rek lépp suñ soo bi nangu ko leen di leen soñaat baax a Euh, di soññi mboolem ahlu ahlu ahlu ahlu xasaay mooy kuréel kuréel xasida yi kon nag suñu mbaagi lañ ci soññ kuréel yëpp euh, xanaa di ci beral ab soññi akub yëg la rek daayira Fulku Masoon bi nga xam ne naka jekk bi sëñ bi dam tàmbali màggali ba léegi dañ ko doon dañ ko doon ànd ak moom di ñëw ci kër gi di fi yando jàng xasaayit ba ba ngoon jot kon ñu ngi ko ñu ngi leen suñu baa ngi suñu baa ngi leen ko yëgal bu baax a baax waaye xanaa nag di di ci di di di yëgle boobu it nag mu koy mu koy mu koy jaare ci rakkam sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moom it moom na Cheikh ci ci ci ci ci ci ci ci kuréel yëpp moom suñu baa ngi koy jaarale ci moom mm, ñaan mu soññi mboolem kuréel xas xasaayit yëpp kon nag ci turu sëñ Abdou Lahad Mbacke mi nga xam ne moom moom moom lañ teew ci kanamam euh, ñi ngi koy ñi ngi ciy soññ taalib yëpp di soñ mbokku jil yëpp di ñaan ci daraja sëñ Tuubaa ñu àgg ci ak jàmm te lépp luñ ci jëf sëñ bi nangul ñu ko turu sëñ Abdoulahi Diouf ak mbooleem seex boo xam ne dafa aju ci kër Serigne bu ñi teew ci jataay bi ak ñi teewul ci jataay bi ñoo yëkkat seen kaddu di jot li nuyoo ñëpp ak siyaare ñëpp di soññ seen bopp di soññ képp koo xamante ni kii da ngaa aju ci ñoom nu maasee waajal bis bi tàmbali njàngum alxuraan mi te sellal ko teg ci njàngum xasaayid mi te sellal ko ñu ngi dellu di soññi taalibe yi fu fi taalibe nekk di ko jox ndigal nan am yéene ak pas-pas teew ci bis bi te teewee ni ab taalibe yi teewe ci kërub sëriñam taxawu gan ñi li mat a def ñu def ko ba bis bi jàll ñu ba gan ñi dellu li mat def ci kër gi ginnaaw ginnaaw gan ñi ñu def ko am nañ pas-pasub ñoom ñu yëkkat seen kàddu jox nu ko de nee nañ taalibe bu dikk da leen fi fekk te daañ fi nekk nañ fa war a rekk ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci surtout taalibe yi nga xam ne mooy mag ñi tarbiye woon sëriñ Souhaïbou ak taalibe yi nga xam ne dañ koo yaakaar sëriñ bi ne mi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikh bu Mbacké nu waajal ko ku koy waajal ko ne loo koy waajale alxuraan mboolem jumaay Touba ji ak mboolem biir Touba gépp ak bitib Touba nga xam mooy njaareem mag biir Sénégal gépp ak mboolem bitim réew fépp foo xam ne kër sëriñ Touba nekk na fa wala daayira sëriñ Touba sëriñ bi ne mi ngi soññ ñëpp ñuy ci jàng alxuraan ak jàng ak bernde bés bi su ñëwee ngir Seex Son bu Mbàkke suñu borom yokk leeram te mboolem ñi nga xaaye ñi ngi fi nekk ñëpp suñu borom defal leen seenu bëgg sëriñ bi mu ngi ñaan ñu yàgg koo taxawee te lépp luñ si ñaan suñu borom yàlla nangu ko ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu turandooy sëriñ Son bi nga xamee ne ñooy commission culturelle bi ci njiital sëriñ Son bu Monsieur Abdoul Ahad ak sëriñ Son bu Monsieur Ahmadul Fadil ak sëriñ bu Jenn waaye ak sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Cheikh Ahmadou ak sëriñ Chouaïbou Seck bi nga xamee ne mooy président actif bi commission culturelle bi dafa ànd ak fédération soppe sëriñ Chouaïbou bi nga xamee ne suñu Abo Mbàkke Daaru Salaam moo ne ci bopp bi ak daayira bi nga xamee ne mooy tasidu sixaar lënkale mbooleem dong yi nga xamee ne ñoo génn ci daara sëriñ Chouaïbou kon ñetti mbooloo yooyu ñooy commission culturelle bi nga xamee ne lépp lu aju jàng alxuraan ci màggal gi ak waxtaan yi nga xamee dañ koy def lu jiitu màggal gi da ci fàttale sëriñ Chouaïbou ak dundam ñoom ñoo sàll loolu ci màggal gi ñu ngi sàkku ci turndoo bu ci nekk mu jàng alxuraan su ko mënut mu wut ñu ko ci wuutu ñu def addiye njàngum alxuraan moom ngir sëñ Chouaïbou bu dee lu jëm nag ci wàllu waxtaan yi ngañ daan def lu jiitu màggal gi am na ñetti conférence yu ci war a am bi ci jiitu mooy plateau bi daan am ci doomi sëriñ Chouaïbou yu jigéen yi ren incha allahu taala dana am ñaaral bi fan ci weeru koor ci ko soxna maam bindu bintu Cheikh Chouaïbou buñu demee ba ñetteel bi bis ci weeru koor am na benn conférence boo xamee ne turandoo yi ñoo koy defal ñoo koy amal ci baas bi ci pénc mi ren nag ñu tuddee ko turandoo si Cheikh Mouhamadou Moustapha yi bisub juróomeel bi tamit am na benn waxtaan bi am ci baas bi ci pénc mi diggante tisbaar ba tàkkusaan moom tamit benn thème bi rek lañ fay waxtaani muy sëriñ soxna bu ak yar yéen suñ mbokki taalibe yi rawaate na dongay takk der yi noo ngi yëkkati kàddu ci ndigalul suñ jëwriñ sëriñ Seex Kanji di wax ci mboolem turu dongay takk der yi di leen woo ci bis bii nga xam ne moom la ñuy defal sunu sëriñ mu sëriñ Souhaïbou mu mel ne bu sëriñ bi wooteelee sëriñ bu bis nun dongay takk der yi noo ci war a jiitu euh, noo fi war a jëkk noo fi war a mujj lépp loo xam ne it war na ci bis bi ci wàllu liggéey ñun la war rawaate na kuréelu donga yi nga xam ne moom la ñuy wax mu Mouride daara ji maanaam di fàttali itam euh, mbale mi nga xam ne moom la ñuy waajalee bés bi mbale mi mi ngi nekk diggante alxames ji mujj ci baraxlu wi ak ajjuma ji mujj ci baraxlu wi ñaari fan yooyu dañ ko jàpp nu góorlu ci bu baax def ko na ni ko sëriñ bëggee. programme bi nii lay tëddee danañ xëy amal njàng alxuraan ak salaatu ala nabi ak xasida ak siyaar yi ñuy siyaare sëriñ bi ak mboolem jabatug sëriñ sooy bu buñ demee ba julli takkusaan ca la ñuy daje ca baas ba loolu mooy nekk programme bi sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi tamit di opposition bi ak fu nu mën a bokk rek ñoom ñëpp sëriñ bi mi ngi leen koy yëgal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu laa silta dayfan kariman sairan abadan mukarraman bi qiraataati wa sadadi